only one reason, reason Boy, I ain't never meant to deceive you. It's been a long time, so I'm used to it. Your lies and your cheats, I won't fall for it. At least I try hard to get used to it. I guess it's time now, I should pack up and leave. I guess it's goodbye, goodbye, but I'm still gonna miss you. najuna musuli mia yakamtinanga tilusi wai yeah I need you right here by my side. Mais si son pour bien prendre la roue, l'amour que j'ai pour toi ne sera jamais flou. Même pas me. Yakınala baknala der samavay Yakınala baknala der samavay Bakımalı gir, bakımalı wait I'm gonna make you my wife Yakınala baknala der samavay Yakınala baknala der samavay Bakımalı gir, bakımalı wait gonna make you my wife. Yeah, Papa didn't make fun. Lady yeah. it's the Block Entertainment. Can only the nickname and I'm say love. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله في تجير الإسلام وقبنا من كل كف جنو ينبال جلي يقول ملا نكسي هاري في قبنا في بطل من دين ولا من بطل من أي قص قص من لين جنو يو لين جغل سبيل يو لين جغل نجي دجي لبو قبنا في نك نو ملي نك دي هبي te siyaare bi nga xam ne ñu ko fi def ak mu jot ñu di ko defal seen mas radiyallahu anhu ñu koy yëgal julli bi yëpp siyaare bi nag biram diine la ndax yàlla lim xam fii mooy yónnente ñi yónni na leen ñu ñëw pour tasaare yi biñ fi jógee ñu baax ñi seen gannaaw lañ xam ñu saxaaba yi ñu nekk fi saxaaba yi biñ fi bàyyi ko wuti fi gaa yi yàlla yi ñu nekk fi di liggéey gaa yàlla yooyu nag moom la ñuy bëgg di fàttali si ñoom nag koo xam ne moo yoroon jaayu yàlla yi nekkoon ci digg bii xame leen doon leen sàmm moom mooy sëñ moom la ñuy fàttaliku nii si yaare bi xat mu jot ko def nag fàttaliku bi dugu ne mu ngi door a door tey xat mu jot daan nañ ñu def si yaare bi waaye ba tey itam xeesal julli yi dafay xeesal xoor yi dafay xeesal asaka yi bi génne yëpp dafay xeesal kon diine bi xees bi nga xam ne moom la continuer xees lépp lu tax si diine bi dafay continuer di xees kon ci kaw yi ñu ngi xool yëpp bàyyi wuñ kenn képp koo xam ne julli la sa turan si sa xooteen si mu ngi sàkku seen teew su ci kattanal yàlla te na teew yàlla bu rek yàlla la bu liggéeyal yàlla képp kuy ñëw ñëwal njiit feetu si géwél boobu liggéeyam bi parce que yàlla feetam yi rek la fi am feet yi nag mooy feeti diine yi feeti yi nit yi diine yi ñoo koy def fàttaliku nag yàlla bokk parce que yonent bi si boppam sallallahu alayhi wa fi nekkee yàlla tuddal na ko ay fàttali ya jiitu woon wala ne fàttali ku baax na ñu baax ñu jiitu woon moom si boppam itam bi mu fiy jógee dellu na saxal ne fàttali ku moom la xam na njëriñ parce que boo gisee mu dem ba si xaj mu wane ne ku xaj te xag si fii si man mu ngi mel ni sa mbir manqué na xaj xaj fa boobu si moom di ko tuddee siyaare mooy fàttaliku ko moom yonent bi si dundam di ko fàttaliku ko ndax bu fi jógee siyaare boobu nag mooy li nga xam ne moo ñu xamee fii moom la ñuy yëg ne sëriñ bi xalifa bi alaaji Mamadou Kabir Ka mu si siyaare bi ñoom bu njëkk mu leen koy gën a xooxee tey di ñaan yàlla yàlla def ko ci mbiram diine rek di wax ci si diine rek parce que siyaare moom duñul dara lu mooy fàttaliku ki nga xam ne moo demoon ki nga xam ne moo demoon nag mbiram mooy mbiram diine rek lépp lu ñuy wax si moom dafa dellu ci diine rek diine ji la yore woon yore ñi xamee woon diine ji fii kilifa yi nga xam ne jëflante la ñoom yëpp diine la jëflante ñoom kon fi mu nekk nii mu ngi mel ni ñi fi baax si kanamam lañ judd ñi fi baax si kanamam lañ dellu moom mu soog fee jógee kon nag loolu si la ñu a commencé nag xam kii mooy kan sàmm la bu ñam doon sàmm ñu yaakaar leen bañ demee boobu la foofu doole dem lim fi baxee nag gannaawam ñoo war a taxaw si gannaawam te moom lañ taxawee nii kon ñu ngi xoo ñëpp jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. la ilaha أتاك بجوده فباك ما أرداك السفاك فتهية منا وإكرام لكم وزيارة في متلا هياك هيا كراب كيدتك بجوده فهباك ما أردك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 ñu ngi say oo mbokki jullit yëpp eh, ñu ngi say si oo eh, borom réew mi alxaaji Yahya Jammeh ak nguuram ak mboolem xalifa xalifa yi nekk si biir réew mi ak jullit ñi yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, assalamualeykum wa julɓe meɗen ɗo jooɗi hannde e, e, e yamirore alhaaji bun oumar diallo khalifa alhaaji baba diallo to saare ceerno e men ɗo neli pour arde tintinde on E xibar e welɗo xibar woni o woni ziyare mo anduɗa o ina waɗa to sara ceerno mbo ɓe waɗanta bam maɓɓe hitande foof ɓe nanguimo e balɗe sappo e joyi lewru arono ndu woni lewru e february e e ɗum noon eɗen ɗum yettina e hoorejo leydi ndi cheikh professeur docteur alhaji yahya e jeje jamme kañum e kala ministaɓe makko wonɓe e nder leydi ndi ɗo eɗen ɗum yettina imam ratib ceerno aliou maska eɗen ɗum yettina eh, président supreme islamique council kañum e membas uji ɗi foof kañum e muqaddamuɓe e taalibeɓe e saare ceerno foof e kala eh, hono wiyete sehila o saare ceerno oɗon tintinangu ñalngu ɗo eɗen ɗum tintina kadi e kala mbo annduɗa aɗa e nder gambia sénégal walla guine bisa o kala ɗo julɗo wawi wonde tan aɗa nodde e nguɗo ñalngu ko ɗum ɗo wonno noddandu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu aleykum mbaɗi musilmoɗo be mo be konton nay e konton ni tola nata kibar le fena njang min keta alaji bun jaloti min be ker ila siyare mi ka ke fama e fa ka e fa ka kenu ala nata ke fa min jedo yata dingol fana nata wulindi sango sai ka wala ke ker